jëf Adja dina kontaan trop pour euh, tontu ci laaj bi mm-hmm. en fait liberté de la presse dans une démocratie amul njëkk mm-hmm. donc euh, kenn waru ko jamais brider mm-hmm. mais liberté de la presse dafa ànd ak éducation maanaam nit kiy utiliser presse dafa war a ànd ak xam-xam boo demee dans les grandes démocraties l'État ne contraint jamais la presse mais la presse connaît responsabilité damay wax toujours nit ñi le 11 septembre bi mu amee l'attaque du World Trade Center mënuloo xool benn archive ba gis benn nit bu dee jamais tu des attaques en Europe doo xool benn image ba gis benn nit bu nekk en sang wala benn nit bu dee Sénégal léegi boo defee jéer ci mbedd mi sa numéro plaque d'immatriculation sax dinañ ko bind ci journal bi donc c'est pas à l'État de réprimer la presse c'est à la presse d'être assez éduquée pour xam lan la war a génne ak lan la warte génne c'est ça le sens de la responsabilité dans des grandes démocraties maintenant donner aussi à l'État les prérogatives de dire à la presse da ngay wax wala doo wax mhm. loolu dooleem ëpp la mhm. waruñ ko may état. donc dañ am ñaari naataango. ñii gouverner ak ñii tas xibaar parce que ñii gouverner dafa am lu ñuy nëbb. c'est normal. c'est ça l'essence même d'un état état dafa war a am lu muy nëbb. la presse est censée aller chercher ce que l'état cache pour won ko askan wi. pour que askan wi xam naka lañ leen di diriger. ñaar ñooñu dañu war a nekk dans le même niveau de responsabilité par rapport au populations. pour que kenn ci ñoom bañu juum. maintenant pour en venir à la situation de Walf encore une fois je le déplore arrêté woon nañ fi signalé Walf déploré woon naa ko fi. ak bu Sen TV. ak bu Sen TV. Mm. mais toujours dama naan il faut que. ñu dépasser les histoires de arrêter un signal ça n'existe pas en réalité man démb seetaan naa Walf Walf n'est pas arrêté il est arrêté sur une fréquence donnée par l'État du Sénégal mais <laughs> il y a tellement de canaux aujourd'hui pour diffuser l'information qu'un État ne peut pas arrêter la presse mm-hmm. un État peut essayer mais un État ne pas arrêter un journaliste qui veut diffuser une information bien sûr man li may ñaan ak li may oote mooy que de part et d'autre aussi bien du point du côté de l'État que du côté des journalistes que ku ci nekk xam lan mooy responsabilité vis-à-vis des populations l'État est là pour gouverner les mm. journalistes sont là pour diffuser l'information la bonne information gis nga bu ñu amoon bu ñu amoon euh, une presse très forte mm -hmm. des réseaux sociaux la n'aurait eu aucun impact sur le Sénégal. On n'aurait même pas pensé arrêter les réseaux sociaux. C'est parce que dañ dem ba nga xam ne la presse a été fragilisée par la pseudo presse mm -hmm. les pseudo journalistes mm-hmm. qui sont derrière des écrans d'ordinateurs de, de, et mm-hmm. qui diffusent des informations qui ne sont pas forcément valables ouais. et recoupées effectivement loolu yéen a ko war a xeex mm-hmm. yéen ñi nga xam ne vous êtes les détenteurs du métier yéen a war a wane ne que yéen vous êtes assez responsable pour prendre une information la traité la recouper et la donner aux populations ba nga xam ne dinañ am l'information juste véritable